auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala seydina muhammad ibn abdallah wa ala alihi wa asxaabihi wa qadimihi wa man tabion bi ixsaanin ila yawmi diin mbokk jullit ñi mbokki taalibe yi seen mbokkum jullit di seen mbokkum taalibe Alaaji Bise yi moo dellusiwaat ci seen jataayu waajal màggal su ko defee tey nag ñu fas yéene waxtaanee sëriñ bi ak xam-xam muy nag lu mat a bàyyi xel lool ndax boo seetloo sëriñ bi mën nga ne diiru dundam jaamu yàlla la fi nekk woon ak liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax bu ñu nee Cheikh Ahmadou Bamba lan lañ ciy faral di teg xaadimu rasul la ma waral xaadimu rasul bi mooy fas yéene liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa ci lan beesal sunnaam te buñ nee beesal sunnaam mooy beesal jàngaleem te munoo beesal jàngale yonti saa sam te doo ko jaaree ci weneen bunt budul tasaare xam-xam sëriñ bi ak ndawam lépp lépp ci sàkku xam-xam la ko jeexal wëlbatiku yàlla dolli ko bu wér a wér yeneen xeeti xam-xam yoo xam ne ragal yàllaa koy may ittaqullaaha wa yuallimukumullah yàlla moo ne ragal leen yàlla ma xamal leen loola waral keroog bi sëñ Mor Anta Sali liggéey kiñ gën a xeemeem ci mu wuutu waajuram ci kër la joor di ko àtteel kenn la war muy sëriñ Tuubaa waaye fekk booba sëriñ bi pas-pasam ak yitteem feneen la jëm fu bokkul ak foofu moo tax boo demee ci mbindam sax di ko ci fekk xaalul yarkan li abaabi salaatiini taxus jawaayisa tuxni kulla maa xiini fa qultu xasbi rabbi waktafaytu bihi wa lastu raadiya gayral ilmi wa diini ñu naan ma demal demal ci bunt buur dinga di nga fa jëlee koom ak xéwal yoo xam ne dina la doy sa diiru dund fa qultu ma daal di wax ne xas bi doy na ma rabbi sama borom waxta faytu bihi te doyloo naa ko wala suraadiya te déet may gërëm xayral ilmi wa diini lu dul xam-xam ak diine sëñ Tuubaa nee na lii képp laa gërëm xam-xam ak diine loola waral mu doon daaray wuy juram ba xëy yoon saa salaam feeñu ko ne ko rabbi asaabaka bil himmati wala turabbihim bi si faqat maanaam sa àndandoo yii nga xam ne say dongo lañ bul yem ak ñoom cim njàng kese waaye na leen yar nag yéege leen seen diggante ak seen borom ba li ñuy wax xam-xamu yëg-yëg mën a ci ñoom bokk la xam-xamu yër kii dafay yër ngir xam te bu dee xam-xam yi bàyyi ko ci yër boo seetloo li ci sëriñ bi taalif macha allah li muy tegtale mooy ndam bu xam-xam la moom sëñ Tuubaa taalif yi di ñaari wàll wàll bi nga xam ne moom la ñuy wax moom la ñuy durusee muy ay téere durus di ay salaatu ala nabi di ay istixfaar di ay madx nga xam ne da ciy tagg suñu borom di ci tagg yonent bi saa salaam di ci julli ci moom. nga xam ne yaw boo koy jàng day mel ni yii yëpp yaa ngi koy def wëlbatiku njàmbaas ci ay ñaan yoo xam ne yu kawe kawe kawe la diggante jaam boromam te mën koo jëfandikoo jëriñoo ko ci sëriñ bi geneen wàll gi nag mooy yi ñuy woowee téere xam-xam lu mel ni Masaalikul Jinaan jëm ci wàllu tasawuf loo ci bëgg xam ci doxin woo xam ne doxin wu sell la moo tax mu ne nazman yarum mu xaala kulla mubtadi wax xaala muntahi isa lam yaxsudi mu ne ab noose la téere la boo xam ne képp ku tàmbalee soobu ci tasawuf bu ko jàngee mu defar mbiram yéwénal mbiram ku dem ba àgg ci yàlla bañ ne kii sax sëriñ bu buy tarbiya la sëriñ buy àggalee ci yàlla sëñ Tuubaa nee na bu jàngee masaaliku jinaan dana am lu ko ci suñ borom tawféexal luy gën a baaxal ay mbiram kon mu mel ni téere boobu leen li ci sëñ bi yekk ci xam-xam mat naa wëri am na fu mu waxee ne sax képp koo xam ne sa xol liñ naan bànneex da koo ràggal yàq ko boo jàngee Masaalikul Jinaan mu saafara la ci xeeti jàngoro yooyu te xoole fi jamono toll ci ràgg-ràgg jamono ñu xoli yàqu kon mu mel ni téere bu mat a yër la lu jëm ci wàllu tawhid boo demee ci Mawaahibil Xuddoos nga xam ne tawhid xam-xam la boo xam ne képp ku bëgg a jaamu yàlla jaamu yàlla gi sell doo ko def mukk mukk te mu ànd ak ngay bokkaale sa borom te xol bu ca bokkaale nekkee li koy dàq ba mu génn mooy tawhid su ko defee muy ñaari wàll takkalum ak taaruf mu ne taaruf bi li koy maye nag mooy yarug sëriñ bu mat sëriñ ci biir baatub la ilaha illallah te liggéey bi ku ne gis na sëñ bi def ko moo tax nga dégg sëñ Moussa di maanaam dex ku dem duy ku soobu ne mes bu génnee xam borom xam yàlla gii xam-xam la boo xam ne sëriñ bi liggéey bu rëy la ci def alxal bu min ni zal yami xat salima min kulli raynin wa bi rahmani xat alima sama xol sell na waaye la ko mooy xam gi ma xam sama borom xam gi mu xam borom moo mu mën koo xam ba taalif ci téere boo xam ne boo jàngee Mawahibul Quddus li mu la mën a jàngal ci tawhid kéemaan la tawhid ba nga xam ne dañ ci yar nag yéegee la ba nga yëg ko boobu yet gis nga liggéey bii ci la sëriñ bi nekkoon digganteem ak ay dongoom digganteem ak mag ña nga xam ne ñoo ko toppoon démb ba dégg nga sëñ Bay Jaxate wax ne xam na boroomam am na boroomam xam na boroomam am na boroomam raw nay moroomam ka des du Bàmba xam na boroomam am na boroomam raw nay moroomam ka des du baam kon mu mel ni sëriñ bi liggéeyam ci xam-xam kéemaan lu mel ni nañ joxe daayil xaaj di téere xam-xam boo xam ne mat naa yër lool waxuma sax yër gi rek mais boo ko mënee mokkal sax mokkalal sëriñ bi li mu ci jàngale mooy teggi ndax yoonu murit boo seetloo li sëriñ bi jàngale lépp boo ko doon tënk mën nga koo tënk ci ñett bi ci jiitu mooy ilmu naafix xam-xam boo xam ne bu am njariñ la booy rootee ci sëriñ bi jàng bindam gëstu jaar-jaaram gëstu njabootam gëstu ay dongom, fañ tegoon seen dund nga xam ko bu wër fase na ko tari ci sa dund yow dana la am ay comportement yum la jural dana am pas-pas bum la jural dana am doxine ak doxalin bum la jural bu lay may sa ngeureumal borom way boko ko ginaaw nak nag leneen loo topp rek dalay sank motax kon xam-xam mata yitte wo lol lol lol lol lol motax ponk bi jitu ci li nga xamne ku bëgg dox ci yoon wi dox bu dëppoog njàngalim sëriñ bi mënoo ko umpale mooy xam-xam yu am njariñ faaw di nga fexe xam sa borom bu sa borom xam li sëriñ bi jàngale su ko defee boo wéeti boo wéetali ko nga mën koy jëfee moo tax mooy ponk bi jiitu ilmu naafix su ko defee nag li nga gëstu ci xam-xam muy lu ama am njariñ dafay doon farata ci yow nga jëfe ko te boo ko jëfee rek ak xol bu laab xol bu sell boo xam doo ci fekk kiñaan doo ci fekk rëy doo ci fekk ngisal doo ci fekk bokkaale doo ci fekk wonewu doo ci fekk tiitaru doo ci fekk lenn lu yàlla gërëmu su boobaa nag li muy jur mooy amalu saalix mooy jëf joo xam ne ju sell la jëf yoo xam ne yu suñ borom gërëm la ñetteelu ponk bi lan lay doon mooy al adabul mardiyu mooy teggin yoo xam ne yu borom gërëm la teggin yooyee nag la koy jur mooy yarug sëriñ bi nam lay yare nam lay yéege nam lay gindee nam lay xamalee ci wàllu nekkin nag defin mooy dem ba jural la teggil yoo xam ne ku jaxasoog yow dina xam ne kii kuñ defar la kii kuñ tàggat la moo tax sëñ Tuubaa daan na wax ne kër gi ku jël yar gi bàyyi woo fi dara waaye ku fi bàyyi yar gi sëñ Tuubaa nee na jëlee woo fi dara kon mu mel ne ñetti ponk yi képp kuy woote woo taaliyub sëriñ bi wax dëgg yàlla war naa jeexital ci yow muy xam-xam bu am njariñ jëf yoo xam ne yu sell la ak teggin yoo xam ne yu gërëm la te la sëñ Modou Moustapha mi ngi ko njëkk a daan waxee ne taalibe murid pire ku koy dégg bëgg koo gis waaw nee na ku koy dégg rek bëgg ko gis nee na saa boo ko gisee melaw a neex la boo yàggee ak moom jikko ja neex la parce que dañ koy defar tàggat ko te it yor na ci xam-xam lu ko dimbali ba nga xam ne lu mu war a nekkee nit ñi rek lu mu war a doxaleek ñoom am na xam-xam ba te loolu lay jëfee mu sell li ko war digganteem ak boromam ci wéetal ko li ko war digganteem ak boromam ci jaamu ko te sellal jaamu gi loolu yëpp gëstu na ko ba xam ko te raxasu ci lépp loo xam ne gàkk-gàkk bakkan la ci mbaaxu sëriñ bi kooku bu jaamoo yàlla yàlla nangu jaamoo te li ko ciy dimbali nag mooy xam-xam su ko defee téere xam-xam yaa ngi noonu leen bari lool nag dañ cee lim yii rek waaye lu mel ni tasawuru sixaar danga fekk ca njëlbéen nga sëriñ bi teel a soññ xale yi ci xam-xam yaay wa sibiyaanu laa tastaxiloo anil hudaa wa bil ulumi saxiloo fa saxiloo bil xibsi wa tilaawa wajtani boo majaalisa saqaawa rawatina fii jamono toll wattandiku leen jotaay way taxay di ndax jotaay way taxay di jamono àgg na ca xarañ foo xam ne nekkatul ne sax da ngay dem fekkee ji ko waaye mën na laa fekk si jaaree ci téléphone bi jaaree ci internet bi jaaree ci télé bi jaaree ci baali jokkoo yi jaaree fu baree bari koo xam ne tey jarul ngay génn sa biir néeg su ko defee jataayu weer texee fekk la fa gàllankoor la ci xam-xam yàq sak taalibe yàq sak lislaam sax te fekk na yaa ngi ci biir néeg kon daa mel ni tey lañ gën a soxla ak defaru tey lañ gën a soxla ak mbaax akuk cell ndax fi jamono toll ci lëndëm waaye nag bu sa pas-pas dee xam-xam bu sa pass pass de ngeureumal serigne bi meun nga tok sa bir nek su ko defee xeeti xam-xam yu kawé dila fekk sa bëc sa bir nek dila yé dila gindi sa digënté ak sa borom way yalla na fekk nga bëgg ko nak té muy dëgg ci yow waji bu connecté wo nek ci lo xamné ne lu soufé la bu jëlako jotaay way taxee di yow bo connecté wo nek ci gëssu go xamné ne bo déconnecté meuna tari lo xamné ne ko jangé ci connexion bi muy yokuti ci bir ak ci biti PDF yaa fi na xus waaye ndax ñor nañu ndax bëgg nañu ndax xam-xam tey jàppandal na lool waaye mbon tam noonu la jàppandee des na ci yow rek ba xam yaa bëgg lu baax wala bëggoo waaye boo ko bëggee lu la jege la rawatina xam-xam ndax tonk la boo xam nit mënu ko ñàkk moo tax sëñ bi ne yéen ndaw ñi bu leen soxla woo lu dul xam-xam wa bil ulumi saxiloo lu mu ci teg fa saxiloo bil xibsi wa lu ngeen jàng fexe leen mokkal ko wajtani boo majaalisa saqaawa na ngeen téye seen bopp na ngeen teet jataay way taxee di lu mel ni tasawudu subaan nga xam ne ñaari téere yi muy zixaar ak subaan yëpp lu mu ciy jàngale mooy liimaan lislaam ak lixsaan tawhid fiq ak tasawuf ci njëlbeenu tasawudu subaan rek sëñ bi nee na yaa ma achara subaan in xiftum xajal mu ne fa xaddi moo taalluman ala amal waaw yéen mbooleem waxambaane yi bu ngeen ragalee gàcce na ngeen jiital xam-xam ci jëf na ngeen jiital xam-xam ci jëf xam-xam bu fekkee jiituwul jëf di nga ci boole lu ca bokkul wala nga génne ca lu ca bokk te boo ca boole lu ca bokkul mu yàqu boo ca génnee lu ca bokkit mu yàqu lanay tax mu mën a mat sëkk sëkk sëkk sa borom gërëm mooy nga jiital xam-xam ba xam ne nii la yàlla gërëm yi jëf ci boo ko jëfee suñu borom gërëm moo tax yonent bi ne woon xam-xam mooy imaam xam mooy njiit te nag ci diine xëy na la ñuy sàggan waaye amul kenn koo xam ne sa métier du wun na da nga koo tërbiyu ba jekk ko soo koy ubbi atelier waaye métier bi boo ko jekkul ubbi atelier koo liggéeyal sa moromu jaam la waaye du la fay sàkkaa sa borom bi nga xam ne moo la bind nag nan nga koy jaamoo te tegul ci xam moo tax mu ne balaa ngeen a jaamu sax fexe leen xam ndax xam gi mooy wéral jaamu al amal sëñ tubaa dafa wax ne jëf bu fekkee xam-xam lay taayalu ko su boobaa jëf ji du am njariñ wax ba ci jinaan ne xaliluhu bil ilmi af afdalu sawaab minal kasiri ma a jëhli lartiyaab nee na jëf ju tuuti te tege ci xam-xam moo gën jëf ju bëree bëree bëree bëri te tegul ci xam-xam jëf ju lu mu bari bari bari te tegul ci xam-xam mi ngi mel ni ngay defal sa moromu jaam loo xam ne teguwul ci xam-xam bi mu soxla jëf ji it dëppoo wut ak la ngeen waxaale woon lu mu bari bari bari bari daanaka dalay yokk ay xas rek ak i ak ak i ñaawal waaye bu fekkee dafa néew na te dëppoog lu soxla moom bu ko fekkee sax jël parce que soxla na ko xam-xam nag moo lay dimbale ca yooyu sëñ bi taalif ci lu bëree bëree bëri ba ci xoqal bu kaaw ba ci xit atum taqatau baynal muridi wal marid lu mel ni ilhaamul waduud xeeti téere yoo xam mat naa gëstu loolu jawharu nafiis waaw di la jàngal sa digënté ak sa borom di la jàngal ci walu julli di la jàngal ci walu jiital xam-xam jiital ngërëmal yàlla ci ngërëmal mbindeef te loolu dëppoo xadis ba yun saa waxoon ne laa taata li maxluqin fi xaaliq amul benn mbindeef boo xam ne jaadu na nga topp ko ci loo xam ne ak mooy yàlla la di seen bi bayit yu leer yu am solo la ci def ci jëwëru fiis di jàngal ki jàng téere bi ne ko jiitalal sa borom ci lépp ndax ngërëmal yàlla gën a yay ngërëmal kum mën a ndax ku mën a doon rek boo fi séqeeg moom séq goo séq ak sa borom moo tax nga mën a séq ak keneen ku mën a doon da faral di wax ne diggante boo gis rek daa am diggante bu ko jur sa digganteeg sa soxna sa digganteeg sa wéyjur sa digganteeg sa dëkkandoo sa digganteeg ku mën a doon sa digganteeg yàllaa ko jur yàllaa la sàkk ngay jaam muy sa borom ngay soo a mën a am wéyjur soog a am xarit soog a am sëriñ soog a am soxna soog a am doom ak leneen ak leneen lu mu mën a doon kon daa mel ni sa diggante ak sa borom beneen diggante boo mën a defar rek bii daf cee war a jiitu boo fi bàyyee sa diggante ak sa borom beneen diggante boo defaree rek daanaka xas la lay yokk nan la lay yokkee xas mooy kat yaa ngi defar sa diggante ak moromu mbindeef wëlbatiku nag sa diggante ak sa borom bi la sàkk ba tax nga mën a séq ak sa moromu mbindeef yaa ngi koy sàggan te daa mel ni loolu jaaduwul njuumte bu rëy a rëy xam-xam nag moo lay te sëriñ bi liggéey ci liggéey bu rëy a rëy ci moo tax kii woote woon ne taalibe la lu ne mën na koo sàgganee te muy doon lu yàlla gërëmul waaye xam-xam moom lu ko war a yitteel la parce que xam-xam ci la ñuy toppee sëriñ bi xam-xam moo ñuy dimbali bañ xam fu ñuy teg suñ tànk mu may ñu gërëm fan lañ war a teg gi suñ tànk te buñ ko fa teggiwul mu xañ ñu gërëm li ñuy sàkku te isil muridu laa yuridu abada gayra rida rahmani xaysu xasada sëñ Tuubaa dafa wax ne murid bi liy yéeneem liy nameelam mooy ngërëmal boromam te boo bëggee yàlla gërëm say jëf di nga xam bu baax yeen jëf la yàlla gërëm nga sax ja boo bëggee sa borom gërëm say jëf gërëm say kàddu gërëm sa comportement faaw nga sàkkoo xam sa borom mu xamal la lan la gërëm ak lu mu gërëmul ba nga mën aw yoon woo xam ne fa ngay teeree ji mooy sa gërëmal borom moo tax xam-xam mat naa yitte woon lool te sëriñ bi soññe ci ay yoon néew na nga jàng téere xam-xam bu mu mën a doon te sëriñ bi yaxal ko te duwut ne ci njëlbeen gi li muy soññee mooy sàkku ji xam-xam am na fu mu ne daw leen gaaw daw leen gaaw njëkkalante jëm ci xam-xam waaye nag na ngeen ci jublu lenn képp mooy seen gërëmal borom kese wax feneen ne na ngeen fexe bay dolleeku saa su nekk ci xam-xam te li ngeen xam na ngeen koy jëfee wa dum ala isdiyaada ilmin waa amal li wajhi rabbika faqat azza wa jalla wa dum la wax dum mooy na nga sax dàkk dàkk dàkk ci dolleeku ci xam-xam waaye xam-xam bi ngay dolleeku nag na nga ko jëfee dugg na da ngay xam lu baax rek ba ko fa déedéet da nga koy xam jëfe ko safaan it da nga koy gëstu ba xam ko ngir gën koo mën a woon ginnaaw moo tax mu ne kon na sax dàkk dàkk ci sàkku xam-xam waaye nag na nga ko jëfee waaye jëfe gi li waj rabbika faqat na koy def ngir jëm yàlla kese azza wa jalla yàlla tedd na yàlla màgg kon ku mel ni sëriñ bi moom wax dëgg yàlla soññe na ci xam-xam ay yoon moo tax ku sàggan ba réer yaa ko teg sa bopp waaye sëriñ bi ci lim soññee mooy xam-xam su ko defee boo jëfee mu dëppoo xam-xam yàlla mën a gërëm gërëm sa jëf te fi mu ñu woon ak moom sëñ Tuubaa weesuwul fu ñuy baaxee suñu gërëmal borom yàlla nañ ko dégg te wuyu ko te rafetal wuyu gi ba nga xam ne ku ñu xool ñu mat sëkk ay seetu ci sëriñ bi sëriñ bee sori sëriñ bi gisoo ko sëriñ bi xamoo ko waaye taalibe bi mat na seetu ba nga xam ne boo ko xoolee war mën a xalaat ne kat kii sëriñam moom wax dëgg yàlla mbaax ga ak yiw ga ak ak bëgg xam-xam foo ko natt weesu na ko waaye am na noo doxee nag boo xefee tuumaal lu sax sa sëriñ yàlla nañ ci yàlla musal wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.